xaaral sax xase yow yow yow yow yow góor nga wala jigéen ne yow noonu la xaaral di xase waat. booy booy eh. ma la sama diggante man ak kii yow parce que fale ay loolu. yow lan mooy lan ngay révolté mbiru député. maa ngaa député. waaw da ngaa leew te te bu bu dugal ci kër gi naan da ngay doxante bu fi ñëwati. ma xool jàmbaar leen rek laa leen digal dégg nga pour nga bàyyi ci xel. li ngay ñàkk jom yëpp a ngi nii ak yëpp a noonu yow moom li nga ñàkkee fayda. gis nga nga ñàkk fayda. eh eh. muy muy wax ay ay ay saw ci sañ koy la taay luñ ko luñ ko la taay booy dañoo alhamdulillah ba tay awma gan. awma awma de. la la la. dama Cheikh la dama nga sangu bo pare nga dog leen di dama dama bu sangu pare nga déglu. do dañoo sangu bo pare ñooñu ngay tegg sangu non ba pare di def seen émission ñak jom. ma dégg ci kër gi léegi. Cheikh Sarr ay ay ay ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko quá quá à, mày mày quá đi đi lên đi đâu có bác sĩ vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa mà mà nằm vừa vừa nga dem si biir nga jàpp la nga déglu leen delloo ma sama xaalis bi ma fajee laa wax ma ma ne la yow sa xaalis de de de delloo feebar bi indiwaatal feebar bi wël bi wël wël wël bi nga wël indiwaat ko jox delloo wël bi yow tax amal xel leen di fële dañuy yor xaalis si bari yor ay nag ba fay dem di yalwaat fii la fi benn fël doon bëgg a dee ñu yor dugub ba fay gars yi di ko luyeel mu naan ndax ci sa dugub ba noonu la mujjee dee ba ba maa ngi xam ba nga ba nga feebarat te yor xaalis. boo paree ma tànk la ndox nga sa ma ngay da ngay sang man. nga sangu ba set ma jox la lekk nga lekk. waaw yow da ngaa bëgg gis sama xalaat banaa bi rek kii kii kii da ngaa bëgg a xoolaale xoola xoola. ay waay yow de daa wow taw taw taw bi xeex xeex gi doo ko ci xool. waaw waaw man man fekk ma ma yow anaconda yu bees yi de man mille huit cent yooyu laa yor xoolal di def xool di dox xool di day concentré def kaa wala. ñànku ma ne demal waa demal demal. boo gisee ni nga bàyyi kay kay tax ma naan ñaaku mu lay arakonda ñaaku. jeer naa ko bàkki mën nga abonné ci chaîne bi gratuitement te doo fay torof torof comme ni ñu ko gisee ci vidéo bi rek noonu la ko demee c'est très simple su ko defee saa bu ñu dugalee vidéo bu bees rek di nga jot notification bu la ko yëgal jaajëf.